waat bu baax a baax rek saa su ne di leen masawu ci li nga xamante ni moo di naqar ak tiis euh, bi nga xamante ni tey moom la ñu yeewoo tey bokk ko ñun sénégalais yëpp waaye ba ba léegi euh, ni ñu koy waxee rek suñu borom moo ko wax kullu nafsin saaxatul mawt bakkan bu mas dund di nga mos dee ni ko noonu nag ñu taxaw ak euh, monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye doon nit koo xamante ne askan bi xam nañ ko waaye Sénégal lekk ñor ko saa su ne muy jug di bokk ak ñoom lépp loo xamante ne rek seen mbégte la wala seen bànneex tey ñu fekk ko ci bésu tiis bi nga xamante ne suñu yaay maman Sakina Diouf Diaga moo fi jóge monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la jaal di la masaw bu baax ci tiis bi ñu bokk. waaw maa ngi leen di fay euh, di leen jaale yéen tamit. parce que ni ko waxee ñëpp ñoo ko bokk. Mm-hmm. Euh, muy lu metti metti metti metti. Mm-hmm. Euh, coro bi ma koy tàggee daf ni ma ah papa nga baal ma de li ma lay wax metti na lool xam naa fi mu egg ci yow mais mënuma la ko bañ a wax. Mm-hmm. parce que ñoom xam xamoon nañu Euh, relation yi nga xam moom laa am ak la famille de Thione Seck mhm. particulièrement Thione ak soxnaam si nga moo fi bàyyi ko tey mhm. d'ailleurs Thione daaw ma wooyu mukk Serigne Mbacké daf man woo rek xaritu jaaga mhm. ma nee ko bàyyi waali ñu ree euh, muy lu metti lu metti parce que Thione bu mu fi jógee yàggul ñu di ko jooy noppeeguñu euh, doomam jiitu doomam jooju aussi mu nekkoon ko nga xam ni ñi ko xam yëpp xam nañ ne doom la woon ci man tey yàlla def li ko neex euh, jaaga dem fekki leen euh, muy lu tiis foo ko natt weesu na ko parce que euh, bu dul woon lu ñu di ay jullit gëm yàlla dañuy wax ne dañ leen a singali hmm. singali mais yàlla boo ko neexoon ñun ñëpp ñu àndandoo mu yóbbu ñu ci benn jour hmm. mi ngi may fàttali rek bi fi suñu way jur sëriñ Mansour si borom mm. daara ji jóge fekk avant loolu soxnaam su tedd soxna maam xaar jóge fi mm-hmm. euh, ñu teg ci ab diir seen doom ju jigéen jóge fi mm-hmm. yàlla mooy defe noonu mm-hmm. c'est difficile pour me trouver les mots pour wax dëgg-dëgg li nga xam ne moom laay sentir mais dama wax sànq ci benn poste mu jaaga moom mission accomplie te loolu ku ko wax kenn du la weddi ndax boroom këram moo ko gërëm ba woy ko mhm. te du benn woy xëy na bi mujj nii daf ci gën a siiw mhm. mais jëkkul ci boobu mhm. ñaareel ba ñun suñu culture suñu cosaan ak suñu aada dañuy wax liggéeyu ndey añub doom kon mën nañu jàpp ni li mu liggéey ci kër coon feeñ na ci doom yi nga xam lu ñoom la jur parce que macha allah yàlla mi ngi leen di suturaal ñeewuñu kenn yàlla nay sutura yàgg waaw euh, comme ni nga ko waxee rek euh, sa xarit la woon moom ki nga xamante ni moo di Papa Thione tey yombul euh, cër li ko yàlla may sa boroom kër siiw sa doom siiw waaye yombul ñuy dégg Mama Diaga ci yenn yi ban façon nit la woon. mooy li ma mooy li ma doon commencé wax léegi dina mission accomplie mhm. parce que sëy ba sa borom kër sant la. Mhm. nga yar say doom ba ñëpp xam ne yaru nañu. Mhm. te kenn mësula fekk fenn foo nga xam ne dañu naan kii lu mu fi def. loolu euh, du sax ngóor a peut-être mhm. mais lu yàlla jagleel doomu aadama la mhm. ak jamono ji ni mu mel mhm. ak demale fekkal leen lu mu mel ni mu mel mais jàgg ko ko waxal dara rek ah sa waxu bopp la mais dooni fekk naa ko ci nangam dooni gis naa ko ci nangam demul dikkul et te li may wax nii mën naa ko wax teg ci kaam parce que jëkkëram moo ko wax ay doomam seddal ko seen yaay lenn rek mooy yitteem muy dem ci armeer yi ba toppatoo ñu feebar loolu rek moo nekkoon yitteem ci li ñu koy dégg. mais loolu yëpp boo ko boolee xëy na moo ko jox li nga xam ne tey euh, moom la am. Mhm. parce que kenn ku nekk la ngay dund yaa ko xam mais sutura yàlla dafa yaatu. Mhm. te bu fekkee ni yàlla jox na lu sutura jox la sakk nga ni ma ko waxee léegi rek nga uuf sa jëkkër ba jébbal ko borom bi. Mhm. Euh, yar sa ay sa njaboot. ba ba ba kenn amul lu mu leen waxal euh, je pense que foofu la foofu la foofu la nit mu a yem te macha allah fi nit mu a yem egg na fa. Mm-hmm. Mm-hmm. li ci des rek mooy yàlla na ko yàlla xare àjjana. Euh, uuf njaboot gi mu fi bàyyi. Mm-hmm. xëy na nit bu demee dinañu jaaxle ci njaboot mais yàlla moo yor ñëpp. nga nekk fi yàlla moo leen yor nga bañ fi nekk yàlla moo leen yor. donc yàlla na ko yàlla xare àjjana. Euh, coon fa mu tëdd yàlla na ko yàlla xare àjjana moom it. njaboot gi fi desit yàlla euh, tegal teg ci boppam loxoom euh, loolu yëpp rek day dellu si ci responsabilité boo nga xam ne nag doomam di wàlli sëkk gën na ko am parce que boo nekkee ak ndey ak bàyyi ak say rak euh, yàlla jël sa bàyyi jël sa ndey tey sa responsabilité dafay gën a yokk donc yàlla na ko yàlla kattanal dooleel ko ba responsabilité boobu mu gën ko mën a assumer li ci des rek mooy képp ku doon xaritu Thione wala ngay mbokkam Euh, rek yàlla na nga am conscience boobu ba gën a jege xale yi gën leen a jàppale gën leen a wéttali parce qu'ils en ont besoin. yan kàddu ngay dégg Sénégalais ci saa su ne rek waxante lu ñaaw xaawente sutura. beneen yoon ñu dellu si ci ci loolu pour le moment je pense que mun naa yem rek ci. waaw jërëjëf ñu ngi lay masaw bu baax. lu baax merci merci jërëjëf.